um salaamaaleykum mbokku téléspectateur Kifne TV ñu ngi nuyu ku ne ci turam ak jëmmam waaye di leen ziar rawatina kilifa diine yi ak kilifa aada yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di ziar yi nga xam ne ñoom la caabi féete ginnaaw ñu ngi leen di ñaanal yàlla fëgg seen bopp ba ñu delluwaat seen jaboot waaye di ziar ñi nga xam ñu ci lalu hôpital yi yàlla na yàlla tamit dimbali leen ba ñu taneeg jàmm ñolu si waat seeni njaboot di nuyu képp nga xam rek yaa ngi toog xaar sa émission ko waxtaane ñu ngi lay nuyu di la ziar rawatina sëñ borom kër gi sëñ Moustapha yàlla na jàmmam yàgg waaye di nuyu ki nga xam ne rek saa su ne moom laay plateau bi muy Alaaji Diop maa ngi koy nuyu di ko bëggee lu bëri di ko ziar borom Kaolack bàyyi màgget mu ndaw ah du noonu di ko nuyu lu bëri waaye di nuyu mi nga xam ne rek macha allah xale bu baax bi yaru na fa la cat caméraman yàlla defal lépp léew bëgg mu doon li gën tey nag euh, seen émission dañ koy dellu sewaat suñu ñaareelu pàcc bi nga xam ne moom lañ passé woon muy alxames bi passé muy li nga xam ne moo di nit koo xam ne bu diglanteek diglanteeg nawlem war ko mu bëri lool ci àdduna bi fu mu toll nii waaye tamit euh, suñu ñaareel suñu xaaju euh, waxtaanu tey bi nag dañ duggal li nga xam ne moo di actualité li xew fi nga xam ne moo nekkoon Goudomp ak foofu ci kër mbay Fall mu doon ay ñaawteef yu méttee métti dal ci ay njaboot waaye nag euh, alaaji dama koy bàyyi rek mu nuyoog ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ñu continuer incha allah rabbi waxtaan bi nga xam ne moom lañ indi tey seen émission nañ ko waxtaanee. waaw maa ngi nuyu bu baax mbokk téléspectateurs xam ne ñoom ñooy topp Kifne TV. Mhm. bi nga xam ne mooy télé bi xew ci jamono bi. di waxee rek. Mhm. waaye bu baax sëñ Moustapha mi nga xam ne mooy borom télé bi di ko ziar bu baax a baax a baax di ko seet di seet njabootam comme ni ma koy waxee. Mhm. waaye di nuyu bu baax a baax sama sëriñ suma xarit. Mhm. sama nawle sama wëllëre muy Serigne Dame Sakho sëtu alaaji bu Sakho maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziar di mhm. ziar jëwle ñoom Ndakaaru fii muy ki nga xamante ni mooy jëwleen Assane bàyyi Serigne Dame Sakho mu ndaw taalibe Serigne Dame bàyyi Fallou Serigne Dame waaye représentant Serigne Dame nekk nit ku baax nit ku gore góoru jeyna ba maa a a a baax sama mbokk yi nga xam ne ñoo nekk Kër Massar mhm. rawatina waa Kër Massar village maa ngi leen nuyu bu baax di leen ziar di jiital ci nuyu bi sama yaayu bopp maman Maguette Diaw ma nuyu ko ziar ko waaye ziar bu baax ko Gaye di ko nuyu bu baax di ko ziar di ziar Abi Diop job, mhm. job macha allah Ndéla Sey waaye di ziar bu baax baax soxna Mbenda job sama doomu baay sama xarit mang ngi koy nuyu bu baax Mbenda mhm. borom ngalar gi macha allah maa ngi lay nuyu bu baax baax di la ziar mhm. waaye di ziar soxna Ngoy ba jeund yaayu mam jaara wa di nuyu wa Sanokh soppe mam jaara yep yep yep waaye di ziar bu baax baax baax baax kep ko xamne ngi top ci television bi di Kifne TV ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar di wax ne télé baa ngi nii suñu tele sen tele ñu ànd seetaan télé macha allah di na di waaye nag di nuyu way suñu mbokk internet parce que am nañ ci solo Euh, ñoom ñoo ñuy seetaan ndax lu ci bëri ci ñoom lañ koy la ko nit ñi di gisee euh, foofu laay jaar rek di nuyu borom ngalax bi ndax damaa bëgg ngalax nekk mu yekkal ma siwo <laughs> soxna Mbend ku baax soxna waaye nag damay dem ba ngumba ngeewul tey fa laay dugg fekk fa samay xarit samay mag sama papa waaye di fekk ki nga xam ne rek moo di Mouhamed Séeri Maguette sekk Mohamed maa ngi lay nuyu di la ziar moom it dañuy seetaan lu bëree bëri du ma fàtte Pathé général Seck maa ngi koy nuyu lu bëree bëri waa Ngumba yëpp waaye du ma fàtte sama papa Petit Ba maa ngi koy nuyu di ko nuyu nuyu Ndiaye Eyib Ndiaye ah, bi yëpp maa ngi leen di nuyu du nuyu képp ku nga xam ne rek yaa ngi Ngumba te tudduma la nee ma xam Ngumba dafa bëri yar ñu foofu ca Guy Murit maa ngi leen di nuyu di leen ziar du fàtte Elage ba tamit maa ngi leen nuyu bu baax ah, tey nag suñu émission nañ ko waxtaanee yéen ko gisandoo noonu muy woor alaaji bi passé ñu waxtaan ci li nga xam ne moo di doomu aadama boo xam ne bu diglanteeg nawleem war ko bu waxee tamit du ko def euh, mu doon lu bari ci Sénégal gi rawatina fépp ndax euh, booy xool des fois da ngay seetaan film yi sax ngay gis ne am na ñoo xam ne ay workat lañ yàlla moo leen bind ñu nekk nit ñuy wor ndax waxtaane woon nañ dëgg ak dëggu waaye tey nag dañuy àggali sunu émission bi ci wor ji lan ngay wax koo xam ne rek nit koo xam ne bu seexeek nawleem rek wor ko. dafa doon loo xam ne dafa ñaaw mhm. ndax war baaxul mhm. ndax kum doon yow kum doon yow di yow mhm. wala kum doon man di mën a ndax euh, jëflante ak doomu aadama ngeen diggaale ba pare wala mu am fu mu la jëlee yóbbu la fenn fi kooku man pour man lu mu métti métti métti man li ma war a doon ëllëg yàlla suñu borom rek moo xam mm-hmm. keneen xamul mm-hmm. waaye man li ma mën a am man man man mm-hmm. li nga mën a am à part rasulullahi alayhi salaatu wasalaam ko xam ne suñu borom dalay jox sans intermédiaire ku du yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon fii lu fi waaye am rek ci nit nga koy jëlee lu waaye am ci doomu aadama nga koy jëlee doomu aadama moo lay jox nga mën a jariñu moo lay def ni nga mel kon yow nga la kooku lu mu métti métti métti métti mhm. def ko nawle mhm. def ko soppe mhm. def ko ndey def ko bàyyi def ko àndandoo def ko xarit def ko wëllëre ndax loolu mooy dëgg waaye man deflante naa yow lu baax ma xëy toog mel ni du yow mel ni du yow loolu dafa doon lu ñaaw ngay ànd ak alaaji vingt ans wala quinze ans ñu jékki-jékki xëy gis la ngay ànd ak ma sàmba wala ma demba ba pare taxawaat di yàqaat deru elage nan diw nangam diw nangam diw nangam diw nangam mais pourtant ba ngay di ànd ci vingt ans yi noonu kenn ah. dégguloo nga diw nangam dedet boobu am am yu juddou fo mo ba ci suñu jamono biñ toll ni tey ji gis nga fi ño xam dañu mel nit lañ ko def waaye ñoom di ko wor la deug la wor la lo xamanteni bi tey ji mhm. ci télé lañ nek bi bëggu bu ko wax mais dafa leer nañ ci rek bi bari la ba ci suñu kilifa rew ñi nga xam ne ñoo ñu jiite mhm, warante gi ak yakante gi ak mhm. waxante bu lu ñaaw bi ngir lan aralo aduna bi nga xam mom lañuy gis tek ko suñu bëtt kasse mu doon lu doy waar mu nek lo xam dafa metti trop trop trop trop ma su dal war mom li sëtu alaaji bu saaxoo di wax rek sëñ daam mhm. mu ne sa xarit da nga koy natt ren ba déwén mhm. waxi renam ak waxi daawam mhm. bu méngooyee xamal ni kooku sa xarit la sa nit la te gor la waaye loolu mooy waxi sëñ Abdou Lahad Mbacké ji la indiwaat rek kon doomu aadama moom war daal moom ci gàttal mhm. mooy li gën a yées te mooy li gën a bon mhm. war moom baaxul guddi baaxul bëccëg yàlla nañu yàlla suñu borom musal ci loolu yàlla nañu ci yàlla musal mucal musal ci bépp jullit euh, ba tax na li nga xam ne moom la alaaji wax dafa bëri ndax euh, woor dafa bëri ci façon yëpp ci sëriñ si ak ak taalibe yi dafa bëri ci liggéeyukaay bërëb yi bëri ci àndandoo bëri na sax ci koo xam ne nii da loo nekk ak moom war koo takk mu war la dem mu doon loo xam ne gars yi bëri ñu ngi koy dund muy ci ku góor di ku ku jigéen te war nag dañ ne boo waree ren ba déwén mu jig la daa fekk dañ la koy jiiñ waaye du yow ba tax na da ngay gis ñoo xam ne dañuy am tolof tolof lool ci àdduna mu metti lool ndey du leen ko mën a fajal bàyyi du leen ko mën a fajal xarit du la ko mën a fajal nga dem fekk koo xam ne yàlla daf koo dimbali nga dem ne ko yow ko laa yaakaar nga ñaanal ma gannaaw yàlla sëriñ boobu ñaanal la ba nga jekk la nga diglanteek moom defoo ko bu lay woo sax doo ko wuyu amaana te nag euh, lu ñu ci bëri dañuy wor ay ay bëri dafa bari ci nit ñi nga xam ne ñoom tamit loolu da leen di dal mu doon tamit loo xam ne na ko nit ñi bàyyi xel ndax ku am tolof tolof ki la ñaanal mënoo koo fay man gis naa koo xam ne dafa am tolof tolof bu metti ci ndombu tànk buñ ko takkaloon mu dem jëli koo xam ne mook moom ñoo bokk benn baay ndax ki mu bokkal baay kooku yàlla daf koo dimbali mu am xam-xam bi mu ko dimbalee ba yàlla def tolof-tolof boobu wàcce ñu jox ko ndombal tànk bu gën a foor bi nga xam ne moom la moom la amoon tolof-tolof lépp nag ci gannaaw yàlla waaye ci ñaanu magam bopp waaye ba sànq ba big nii nee naa la boob ba léegi dëggu fi tànkam ba ni mu jëlee retraite mu doon lu bëri kon loolu boo koy xool wor la doon ndax ki nga yaakaar bu la dimbalee waroo koo wor ji dañ ci gën a xuus xam naa yow dama lay bàyyi rek ndax ñàkkul tamit ne am na ñoo dundal ñoo xam ne ni loolu dal na leen bu dee yéegu sëy bu dee ci wor euh, ci ci liggéeyukaay bu dee ci àndandoo bu dee ci sax jëflante koo xam xamoo ko ngay jëflante am ci moom yaakaar mu yor la mu war la dafa bëri lool. waaw loolu tamit am na solo. Mhm. muy man de sama morom ñi ko dund jamono bi ñu toll nii bëri na. tax mhm. tey mën na ni tey man. lu metti metti métti mënumaa wax ni mhm. ba ma juddoo ba fi ma toll nit mosuma wor loolu mosul mënul nekk wax dëgg yàlla parce que am na loo xam dañ juddul dul mën a sori duñ ci mën a xuus ndax ci télé lañ nekk rek waaye ci gàttal daal mooy dal na ma mhm. moom loolu laa ci mën a sànni quoi comme kàddu beneen bi ci tegu tamit aussi mhm. mooy dafa am koo xamante ni bi ab góor la bu baax bi mu ñëwee ñett ñi ku nekk dalaa ñaanal kenn ki da koo ñaanal soxna su baax mu ne ko ah soxna su baax nga ñaan mu ne ko waaw gaay ko tax nga ñaan soxna su baax mhm. mu ne ñaanama la soxna su baax ñu ne koy da nga matalé mhm. mu ñëwaat ci waaji waaji nako man dama bëgg nga ñaanama ma ma nekk directeur général ci famay liggéey mhm. mu ñëwaat ci waaji ne waaji dama bëgg nga ñaanama ma am xaaliss bu mu leen la ñoom ñëpp ba ñaan ngeen ku ci nekk pa bi togan ay ak ciaru fa mu benn bis mu ñëw ci dëkk ba jaar fa ñëw ci bërepp sang ci bërepp sangam ne directeur sangam la laaj ñu ne ko mi ngi fi mu ne da nga ñaan lool pour na la ñaanal ci cadre war la batay tey ko war la

bi mu ñëwee fekk sëñ bi génn. Mm-hmm. mu ñëw mun na ko toogal mu toog mu jëndal ko ginaar ba mu mm-hmm. ba fa newoon mu rey ko toogal ko ko añ fekk ca tool ba ne ko mm-hmm. ah diwkat am nga gan waaye nag ginaar ga ca kër séq ba laa rey tere ko mu ne ko ah lu tax loolu mu ne ko nijaay yaa na moon gan teeru teral dëkkal jàppale mhm. bégal ko mhm. mu ne ko ah, effectivement maa a waxoon loolu mhm. mu ne ko ah, kooku kan la war a doon mu ne ah moom de nee na moo la ñaanaloon soxna su baax te soxna su baax nga ko doon ñaanloo mu ne ko ah nañ dem mu ñëw góor gi xàmmali ko ko waxaat ko li taxoon ñu xamante ñoom ñaar fi ñu jot a jaar yëpp yëpp mu ne ko ah wax nga dëgg de waaye nag mu ne ko ñaar ñi dama faa jaar ku ci nekk war ma ndax kii nee na moom liggéeyu ndey may lim am kenn barke bàyyi ma may waaye la ma yëpp de rocc naa ko jox la ko yow nga am ñett yëpp soxna su baax alal ak bërëbu liggéeykaay bu baax liggéeykaay bu baax mu ngi noonu moo tax lu waay di jiw ak moroom rek na doon ngor parce que na doon lu baax ndax gor gor dafa dañ ne gore te nit da nga war a ànd ak sa gor muy metti muy neex ba tax na fi nga daanele rek dama fay indi ndax euh, man gis naa koo xam ne ndeysaan xaritam la jël boole ko ak ndijaayam muy jàng boobu mu ngi jàng mu dem yóbbu ko kër ndijaayam moom ci boppam xarit bi mu koy fayal jàng ndijaayam ji mu ko dénk moom it gore ba mel ni xarit ba bi mu gore ba mel ni xarit ba jël ko def ko comme doomam bañ na ko ba sax fa doom yi tëdd du fa tëdd ci ginnaaw ndijaayu xarit boobu fa lay fanaan ba yàlla def ba jàng bi sotti bi jàng bi sottee ñu jox ko ndombal tànk loo xam ne euh, da moom maanaam bu rëy muy dox di dox di dox ndax paa boobu ne mu nekkoon këram bay jàng ba yàlla di mari ko paa bi gëj na koo gis ba di ko laajte bés ñëw am ñu fa dem mu ne man de diw dama ko doon wër di ko laajte ba gis ko bi ma dajeex moom bi ma ko nuyoo dana ma yow la kan dèjà goree di am na fa wor am na fa pa boobu ñun ñoo toog mu koy nettali di ko mititlu di ko mititlu ma ne ko àdduna amul solo yow sa lu baax li nga def rek yàlla mën na la koo fay pa boobu da koy da koy mititlu ba ni mu génnee àdduna kooku nga xam ne dimbali woon na ko ba yàlla dimbali ko tegu fa tànkam ba sànq ba biig mu doon nit ñoo xam ne dañu war di bàyyi xel ne nit loo mënti am fàttalikul sa démb ndax wor baaxul nit di nga war koo xam ne nii boo ko defee du la jikk alaaji euh, sunu waxtaan tey nag ci wor lañ indi ndax nit da ngay gore ba tax na bu ñu faram fàccee suñu deuxième heure bi dinañ ci waxtaane li nga xam ne rek mooy di xale yi faatu woon foofu ci Kër Massar ñu ciy massawu seeni wayjur bu baax waaye di masandoo massawu dëkkandoo yëpp di wax ne nag ki def ñaawteef bi yàlla na ko yàlla nit ndax ba kenn dafa foor waxatuma laa xale moominu yàlla nga def ko jëf ju ñaaw jooju tëj ko ci oto ba baayam dem génne ko di ko wax mu doon lu metti ak lu manti am rek bu ñu amee règlement de compte lu manti am nañ xam ne xale yooyu ay moomin lañ te alalu àdduna jarul dara ndax booy dee kenn du la yóbbaale alal ji duñ la suuluwaale ak oto duñ na suuluwaale ak kër ga duñ na suuluwaale ak yére ya lépp loo dencoon fi nga koy bàyyi kon nit loo mënti am na ànd ak ngor ndax loolu yëpp ci gore la bokk ndax boo ne damay xëy rek am am am te amin ba du rafet it mujjin nga du rafet alaaji loolu lan nga ci sànni sa kàddu balaa ñoo jàll ci beneen mi nga xam ne rek moo di ñaaw ñaawteef boobu am foofu ca Goudomp man wax dëgg yàlla li nga xamante ni moom moo xew ca kër Mbaye Fall. Mhm. ak kër Massar comme ni nga ko waxee rek. Mhm. doon na loo xamante ni bii tey jii lu ñëpp di naqarlu. Mhm. parce que tey doomu aadama lu la warte mën di métti si nit ki rek defe naa ni nga koy fayoo wala nga koy fayee. ak njabootam. ndax li may faral di wax njaboot gi defuñu la dara. doom yi ñu la amee luñ la àq amee lu jotee ak seen baay wala bu mhm. Mhm. na mën a def loo xamante bi tey jii mooy li rafet li mhm. rafet mooy lan maanaam xale yi ma bañ leen a boole ci mbir mi ndax des fois da ngay gis sax maasu doguma la sax ma xaw ca la tuuti nga gis yaay ak papa xuloo sax boole ci seen doom te seen doom dafa leen dara kon loolu tamit aussi ñu koy bàyyi xel di mastawu tamit aussi grand bi nga xam ne moo ci ñàkk doomam ndax wax dëgg yàlla am lu ko nakari trop trop mhm. trop mhm. ndax limay faral di wax rek maas comme doon yow di yow mhm. bu doon man mi daf may nakari ndax lu metti metti metti métti jëflante nañ ñom ñaar teranga wala sekk nañ lu baax ak lu rafet kon lu metti metti métti waroon continuer di rafet bu jafé jafé amé seen digal nañ xol nañ ko régler su problème amé nañ xol nañ ko gérer mais xalé mom man wax deug yalla nakar na bu fa nakari yam parce que xalé yi defuñu dara jotewuñu ak mom dara ba mu japp ay doomu jambur jël leen duggal leen ci biir auto baase auto bi tëj leen ko ba ñu dé lolu jëf gënu ko ñaaw jëf gënu ko yees te jëf gënu ko bon wax dëgg lu bon la lu ñaaw la lu ñëpp di ñaaw la rawatina sénégalais yi ku mhm. nekk yaa ngi koy ñaaw yaa ngi koy ñaxtu mhm. yaa ngi koy métitlu mhm. parce que xale alalu yàlla la defu la waxu la jotewu leen dara seen bàyyi nga joteel yàlla rek moo xam ñun xamuñ ci dara dara wóoruñu ci mais de toute façon ku mooy jëf ji daal ak nekk na jëf ju ñaaw ju ñaaw a ñaaw mu doon lu doy waar di ñaax rek nga xam ne ñoo di autorité yi ñi nga xam ne ñoom la yàlla dénk ay dombal tànk ci li nga xam ne moo di pouvoir euh, euh, ñi yor euh, kii yi ci réew mi ñooñ ñoom ñëpp dañ leen di ñaan ñu jàpp ci liggéey boobu ba li nga xam ne moo am ñaaw def boobu képp ku ko def yàlla nit ko waaye nag ñu bay ci seen waar liggéey ci ndax li ñu def ñaaw na doom dafa sax ci xol waxatuma laa nga yóbbu ñaar yóbbin ba ñaaw na lool ba ne dañuy lu xoti bëtu ñaaru xale yi benn kenn ki doon na lu metti ndax man seetaan naa ko waaye bi ma koy seetaan sama xol dafa tooy ndax yaay laa di wax rek ne lu ñaaw jarul dara alal jarul lu ñaaw na rafet ndax ëllëg moo tax li ma wax léegi nit du dee bu yóbbaale alalam kon lépp fii lay des kon eh, di wax rek eh, tamit la nga xamne mo xew ci gudomp muy xalé bobu xam ne dafa tàggoo won bali avant bobu sax dëgguma la mais damay profité tamit aussi di mastaw yaayu xalé bi. Mhm. mo ñaar yi nga xamne ñom lañ faat Kër Mbaye Fall mhm. yaay tamit aussi dañ koy mastawu. parce que yaayi yi tamit amna lu ko naqari amna lu ko metti mhm. ndax yor say dom am bu juroom ñent wet nu mu nga xey yar sa dom bañu xaw mag ba deugar ñu dundé yaakaar. di am lo xol ma jek jek gis yalla tegu la natt boobu nit la ko teg. doon lu ñaaw lo xam lu metti la. dañ koy masawu xam ni am na ci solo lool yaay ji tamit dañ ko war di masaw ndax gisuma yaay ji mais xam nga li nga wax rek ëmb juróom-ñeenti weer nàmpal ñaari at dara gënu koo metti nga xëy rek ñu jël ko ci anam bu ñaaw ki def lool nag war naa ci lool ndax def na lu ñaaw te xale yi ay moomin lañ waaw ndax te foofu laa jóge rek di dem foofu nga xam ne moo di guddomp ñaaw téef ba fa xew waaye nag mu nekk ndogal ndax man nee naa mbaam wéq na doom waaye bañu ko xëj na dañ doon jubbanti te yoonu jubbanti ba wees ndax danga li nga wax léegi rek banta ci tooy tooy ba dañ koy jubbanti ndax xale ba dafa tàggoo ne dafay dem baali mhm. papa ji tere ko mu dem fanaan fa ba fajar mu ñëw ñu dóor ko mu faatu seen loxo ñu gas ko suul ko ci bés ci kër gi ba dañ leen mujjee boole mu doon lu doy waar ndax nee naa loolu ñun duñ ci mën a sori niñ ciy man rek mooy ki nga xam ne mooy di wéyjur yi ñu leen di ñaax ñuy yar xale yi ci bi ñuy ndaw alaaji ah, loolu dama lay bàyyi rek nga faram fàcc si ñu doog a continuer li nga xam ne moo di loolu ñu war a waxtaan. waaw xam nga xale bi moom. mun mhm. naa ni def na. Mhm. ndax def gi mooy lan. Mhm. bul def lii nga def loolu. ñàkk kilifa fa la tàmbalee. yaay ji mm-hmm. ci boppam mm-hmm. waroon na mën a xar tànk tubéyam bu jaree sax mu fanaan na xale bi na fanaan na xale bi ngir bañ a am gàcce mm-hmm. ndax baay bi tere na ko ba mu xam ne tere na ko bu xekkee xale bi dafa am néeg majeur na il est vacciné tëdd ak boppam ba heure jot heure dem ci ba jot mu leen na day ak baayam tëdd nañ kenn mënu koo téye kon liñ na yar du wees waaye nag famille weesee mooy maanaam boo ko war a ci ba muy taw jubbantewoo ko mhm. la ca des mooy fexeel bu rus la rek mhm. mais bu la rusut ragalu la mhm. lu ko neex lay def faalewu la tamit aussi lu ko neex lay def te gis nga ku faalewul sa kilifa di nga gis ku faale kilifaam ku toppatawul sa kilifa di nga gis ku toppatoo kilifaam ndax xale bi ba muy génn di dem ba ko papam ne ko ah sa tànk ndeyjoor bi bu mu fekk bu càmmoñ bi ci yoon ba nga jëm ci yoon ba nga jëm te mu nel ko ne yoon boobu du yoon bi neex baayam bu dee dafa bëgg ngërëmal baayam di barke rek war foon teg tànkam benn ñaareel bi tamit yaayam yaayam tamit ci boppam mhm. waroon na xar tànk tubéem ba xale bu mu génn kër gi mhm. muy ñaar mhm. ñetteel bi maanaam dóor ko ba mu génn àdduna mën nañ faa bañ a yegg saytaane moo ñëwoon rek mën nañ faa bañ parce que mer boo meree te àndoog sa xel di nga def ba def loo xam ne du neexul yàlla la te nga mer ma asu ki lay téye la bàyyil defal nangam defal lii defal la kooku mooy sa mbokk waaye boo meree am na ci ñoo xam ne bu ñu meree bu ñu faale kenn duñ toppatoo kenn liñ bëgg dañuy gis tànk defuñu ko duñu am jàmm tey ndax xale yi jigéen yi nga xam ne tamit aussi ñoo toll ci génération bi ñu toll nii mhm. dëgër nañ bopp dëgër bopp nga xam ne wow bët benn paire wow bët boo xam ne <laughs> maasu jigéen nga d'accord <laughs> waaye booy kenn mënu leen tere luñ bëgg a def nga wax dëgg luñ bëgg a def def ko pour loolu amatuñu kilifa de dañoo paan kilifa mhm. ci lu wér dañoo paan kilifa maasu moo tax mu metti mu lool koy masawu nag bu baax a baax ndayam ak baayam mhm. ndax dañoo jubbanti moo leen ci taxoon jóg defar moo leen taxoon jóg defar gi ëpp kon nag seytaane laxasu ci mu demee na mu demee gis ngeen ko mu noonu kon képp ku yor sa doom képp ku ñuy teewlu fii ci Kifne TV te nga yor sa doom mhm. Mhm. na nga ko yar ci bi muy ndaw mhm. toppatoo ko teg ko fi nga ko war a teg da la rusee am na yu muy jomba def wallaahi wallaahi loolu rek moo ma moo maasu li nga wax rek doom fexeel mu rus la mm. waaye bul fexee mu ragal la mm. ndax bu la ragalee bu wéetee def musiba moo moo xew sam papa dem na new fi mm. du ma def jàmm mais bu la rusee mel na ni saay buy dox yàq moom ay ànd kon yàlla nañu yàlla dimbali ñu yar xale yi mm-hmm. waaye nag léegi yar ci kër yi mbedd mi yàqal la mu doon lu doy waar mm-hmm. ba tax na rek ñun dañuy jël lépp lu ñu am dénk ko suñu borom mu dimbali ñu ndax jamono bi foofu la toll. mais bay si la waaw ñu ngi bay ñu bay bay bu baax am na ci solo comme li nga wax mm-hmm. waaye nag xale yi léegi li nga wax xale yi léegi dañu doy waar déggatuñu ndax bu njëkkoon mbedd mi dalaan la yaral léegi nag boo yaralee nit ci mbedd mi boo maytul yaa wax la musiba boo xam mu ngi noonu école ba sax da ngay dóor léegi ñu dem àkk ji ki nga xam ne moo di kiy jàngale kon nañ yar njaboot gi ndax loolu mënoon na fa bañ a àgg ba musiba di ci am ba leneen di ci juddu ba tax na rek di ñaax njaboot gi yépp di ñaax way waajur yi nañ yar xale yi waaye di wax xale yi tamit nañ xam ne xale lañ te ëllëg nettali dafa war a rafet mm-hmm. ndax carrièreu xale yàggul mu ngi noonu ba tax na tey lii lañ indi woon seen émission nañ ko waxtaane damay bàyyi rek alaaji Jóob tàggatoog ñi nga xam ne ñoo ñi seetaan incha allahu rabbi ñu dagg ko ba alxamis bii di ñëw waaw kon Mass mi ngi noonu programme baa ngi noonu fii ci Kifne TV rek comme nañ ko tijjee woon noonu lañ koy far ñu tëjaatee ko mm-hmm. di santaat bu baax di gërëm ñi nga mm-hmm. xamante ni mooy mbokk téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ñuy topp di ñu suivre fii en direct mm-hmm. xamante ni bii tey ji mooy suñu télé di seen télé ñu ànd di seetaan télé comme ni ma ko faral di waxee saa su nekk rek kon di nuyuwaat bu baax borom kër gi di ko ziyaaraat bu baax baax mooy sëñ Moustapha mi nga xam ne li may faral di lu

bu baax a baax a baax sama yaayu bopp mhm. mère Xaar Ndiaye yaayu soxna Anta Diak ak soxna Wëli ak soxna Daba mhm. mu nuyu ko ziar ko bu baax a baax a baax waaye nag di ziar nag bu baax mhm. ngalax gi macha xam naa daf maa dig ngalax tey moo tax <laughs> maa ngi nuyu di ko ziar bu baax a baax di baax Rama Ndaw di ko ziar bu baax moom it Ndaw maa koy nuyu bu baax a baax a baax Rama sama jigéenu bopp waaye xujja kay du ma ko fàtte waaye abi Diop ah di ko ziar bu baax ndey la sëy nuy waat naa ko bu baax baax baax waaye ziar bu baax waa café ga jibi maa ngi koy nuyu di ko ziar bu baax waaye di nuyu tamit aussi encore une fois sama xarit sama mbokk sama lépp muy tapi bi nga xam lu mu defaroon baaxul mooy ki nga xamante ni bi tey jii moom mooy ñang baalo ma di ko nuyu di ko remercier lii ma takk na boo gisee tey xam ne sama doomu moo fa jaar ñu naan ko alaaji borom Kër Massar hmm. nekk koo xam ni photo kii rek lay jaay verre lay jaay ku ko ku photo gere ku fa jaaru ku ne rek defe naa takkoo verre day mel ni solo woo wala day mel ni sañse woo kon mi ngi noonu nag kon émission bi loolu mooy nañ ko waxtaanee fii ci Kifne TV la mm-hmm. ak alaaji àndoon ci jigéenam bu baax bi mooy soxna Ma Asu Ma Asu tey programme bi am na solo trop li nga indi ne moom mm-hmm. tey moom doy na wax macha allah waaye maa ngi remercier képp ko xam ne yaa ngi bokk téléspectateur di siigu Kifne TV mm-hmm. sant naa la gërëm naa la abdiment baa ngi ne gis nga ko mu ngi nii li ñu sañse nii ñoo koy defaral suñu bopp képp ku ñu soxla rek boo ñu woowee ci numéro téléphone bi nga xam ne moom la ñuy bëgg a joxe mhm. incha allah rab di nga ci am mooy 77 mhm. wootee di nga jokkoo ki naan El Hadj Cheikh Ibrahima Diop ñu gën koo xam ci El borom Kaolack mhm. moom mooy defar yu baax yi am na fi prêt à porter lépp loo soxla rek boo ñu daa ko fekk macha allah di jaar bu baax wóor suñu caméraman bi tamit aussi di ko foofu la ñuy tàggatoo ak yéen rek defe naa alaaji ziar na ñëpp ah. kon di bëggee ñëpp di leen ziar tamit di bëggee ki nga xam ne moom laa jàkkaar lool muy Ousseynou Samba yàlla yàlla yàggal taxawaayam fii ci Kifne yokk ko ba mu yëg ko ci barke mohammed waaye nag di nuyu képp nga xam ne rek yaa ngi toogoon di xaar sa émission nañ ko waxtaane ñu ngi lay nuyu di la ziar rawatina borom kër gi sëñ Moustapha maa ngi koy béggee lu bëri di ko ziar waaye di ziar njabootam gépp yal na yàlla dolli jàmm di leen wax asalaamualeykum wa rahmatulah taala wa barakaatuhu seen beneen émission nañ ko waxtaane